dëkkoo woon ñu góor ña am na ca ku ñu wax sëñ Abibu Jóob am na ci ku ñu wax sëñ Jabeel am na ca ku ñu wax sëñ Seexu sëñ Abibu Jóob moom nag bis bi daf ko woo ba mu ñëw mu ne ko demal ca sa baay nga ànd ak ku ñu wax sëñ Masamba bokkut ak sëñ Masamba mii ñu miin bu ngeen demee ngeen ne ko lu mu yoroon ciy téere te daan ko jëfandikoo na leen ko jox ngeen andil ma ko góor ga daa bari woon i téere loolu ndax da daa jëfandikoo xay na lu jëm ci wàllu lasaraan ba demee mu dajale téere yi mu bari lool ñu andi ko ba ñëwee sëñ ne leen dikk ngeen ñu ne waaw mu ne ana téere téere ñu ne ko mi ngi nii mu am fu mu leen yabal ne leen bu ngeen demee ngeen toog fa te xaar ma ma ñëw bañ demee toog fa di ko xaar mu ñëw sëñ bi bi mu ñëwee ne leen ana ana téere ñu ne sotti leen ko ñu sotti ko mu di ko xool ba agsi ci wenn kayit wu ndaw daat ko yëkkati ne kayit wii de maa ko bindoon bu yàgg loolu rek la leen wax xamuñu ba xam kayit wee taxoon mu yónnee mbind mu yónnee téere yi wala déet waaye neen loolu rek la leen wax ba koy yónnee ñu am ay fan sëñ Modou Anta Gaye ñëw fa di siyaar si bi mu ñëwee bi mu nuyoo sëñ bi sëñ bi dane ko mataa jixta mu ne ko ci digg bëccëg mu ne ko min ay na nazalta mu ne ko kër ma Masamba Caam mu ne ko lu tax ma lay làkki araab nga di ma tontu ay wolof mu ne ko bu ma nekkee yow maak aw bëy ñoo yem dootuma xam dara sëñ bi ne ko lu tax xam nga lu tax ma la doon laaj téere min ay makaanin mata jixta mooy kañ kañ nga ñëw mu ne ko ci digg bëccëg min ay makaanin na salta ci ñu ko xamut dane ko ban bërëb nga bàyyi ko bi mu ko waxee loolu ba ne ko xam nga lu tax ma la doon laaj téere yi suñ ma doon antagay ne ko dama xam ne boo ma ko laajee war naa la koo jox waaye xaw ma lu tax ma di la ko laaj nga doon ma ko laaj suñ mu ne ko li nga doon def de daa mel ne dangaa jógoon danga dangaa jógoon di rëbbi rab woo xam ne am na ku jóg ca fajar sox ab dibeem dugg àll bi rëbb rab ba jam ko fees ko toj ko togg ko taaj ko nga xam ne jëfandikoo képp moo ci des yow nga jël rab nga nga jóg fas yéenee rëb bi rab woowee nga xam ne am na ku jógoon ca fajar ba rey ko ne ko li nga doon def noonu la mel daal di dugg ci biir génn xasida gu bees tàq gu tooy xëpp mu yassara lii mu yassarul asir maxtaaruhu liya bi laa machine daal ko koy jox nga xam ne nee na li des ci ak dundam xasida googu yi la daa jëfandikoo loolu li ñu ci déggee mooy kon lii maye lu baax fi ñu fi ñu toll nii mooy xasiday Serigne Touba yi masaa woo sëñ Massamba itam ne ko jàngkat yi de damaa bëgg ñuy jàng si fajar ndax rasulullahi mii borom jàng yi da ko bëgg di déglu si fajar daal di génne fukki dërëmi ngurdu ak ñaar ne ko nañ leen ci wutal mbubbi sedd sëñ Massamba ne ko damaa bëgg liy des fi te man ma dem fàggul leen ko ci sama xaalisu bopp sëñ bi ne ko xam naa ne man nga ko waaye damaa bëgg bu ëllëgee bu leen di fay fayaale mu dem jëndi ko ba mu ñëwee fajar ga njëkk a ñëw di jàng dañoo jàng ba noppi sëñ bi ne leen dikk leen noppalu bi ñëwee mu jox leen cere joo xam ne lu mel ne ndawalu ganaar moo nekk ca kaw ak lu mel ne war na ba bañ jógee bay dem mu ne leen dikk leen ñu ñëw mu ne gis ngeen xóot-xóot soosu ci nekk ñu ne ko waaw mu ne bi ngeen ñëw la fekk rasulullahi teg ci loxoom ba di ko teggi dama leen ko bëggoon a wax ndax ngeen xam ni ngeen koy jëfandikoo ñu daal di dem jëfandikoo ko séddoo yax dikkaat ne ko mbàkke de dañ laa bëgg sant ndax li ñu defal yow rek yaa ko mu ne ana nu ngeen bëgg a sante ñu ne ko xanaa di jàng sa xasida yi mu ne bismillah sëñ bi bu daa jàngalu xasida tënk ba rek lay wax mu daan ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñu tàmm di jàng xasida ak lillahi rabbi lasi xad jaadali bi huda kulli xadiman liman taqdimu hida bañ jàngee ba agsi ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun karimun lam yasal samada sëñ bi mel na ku tàqalikoo sagom daal di dindi kaala ñëw ne leen baamu leen ko ñu baamu ko mu ne leen baamu leen ko ñu baamu ko ba muy juróom-ñeenti yoon mu dugg ci biir génne biteelu sikki bu mag boo xam ne sëñ Isaa jenn moo ñëwoon ca fajar ga jox ko nga xam ne ba mu ko koy jox sëñ bi nee na ko Isaa kon sikki dana nekk ci biteel yu toll nii sëñ Isaa ne ko maay jënd yu ndaw yi di ko ci sotti ba mu toll nii biteel boobee la sëñ bi jël fekk leen fa ñuy jànge kenn ku ne mu yëkkati sa mbubb sotti la ko ba nga yëg ne sotti na la ko ba ñëpp daj biteel ba jeex moo sànni sëñ sëñ Masamba for sëñ bi toog di déglu di déglu ba nopp mu ne dikk leen noppul ba ñëwee mu ne xam ngeen liggéey boobu ma leen defloo nu mu demee ne ko ñun day mbàkke pëstéef beeg bëgg gi rek ñu ci bàyyi waaye xamuñu ci dara mu ne loolu doy na waar di waaye xam ngeen janaaw ñu ne ko waaw mbàkke mu ne xam ngeen laaf ya ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen dunq ya ñu ne ko waaw mu ne ndax bokk nañ ay tur ñu ne ko déedéet mu ne noonu la demee man mi ko wax maay njanaaw li yéen ñu koy nett li laaf yi ñi koy déglu ñooy dunq yi sax leen ci loolu fu ñu jëm ànd daane te ngeen xam ne lii ngeen wax fu ngeen koy waxee ti maa ngi seen biir donte ca ñag bala ku ñëw fekk ma masaan bi si ñuy jàng xasiid ak muxaddamaatul am daax ba agsi ci yabus sumti daax yi jumlatan xaasahat nabi minan nafi wa huwa albahru sul jalbi wa nafi sëñ bi ne taxaw leen ñu taxaw mu ne njariñu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam de bu doon fukk la benn bi rek lañ jox yahudi ak nasaraani ñu bew ba di ko tasar tasare waaye juróom-ñeent yëpp ma ngi ca waggam ya moom yonente bi sallallahu taala alayhi wasallam xam ngeen lu ko fa mën a jële ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne xanaa bu ñuy sama xasida yi jang sama xasida yi day mel ne déem ñor ba boo ko gësamee mu wadd boo ko mu wadd ponkal ma gën a am am lef jàpp ca roon nga di ko gësam noonu muy wadde bi ñuy sama xasida yi noonu la njëriñu yonente bi sallallahu taala alayhi wasallam di wadd kon danañ sant yàlla ci ne bërëb bi itam dana fi wàcc noonu yi kon loolu daana ko wax ci xaside daana wax ne itam dee leen nàmp si ci man ndax man dey jaboot laa ju bari soow te du ma muural sama batt nag mooy xaside yi sama batt mooy ween wi ñuy nàmpe ci man mooy xaside yi suñ bi daana digle loolu daana wax ne lu mbir baax baax baax te déggu leen ma di ko wax gisu leen ma di ko def néewu ma baaxul de waaye yéen bu baaxee baaxalu leen ndax nit ku nekk meewum ndeyam moo gën ci moom te yéen may seen ndey kon loolu li muy tegtale mooy ñu yem ci Sëñ Tuubaa surtout jamono jii ni mu yàqoo ba nga xam ne day mel ne xéewali Sëñ yi dañ koy jël soppi ko ñun jàpp ne ay jafe-jafe la te yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Sëriñ Moustapha dafa jógal boppam ñëw jox sëriñ bi addee sëriñ Tuubaa maamam nee ñu may ñu dégloo rek ndax daa mel ne waxtaane sëriñ Tuubaa moom ak jaamu yàlla la du du ceegii du ceegii waaw xam naa nag bu coole amee waxtaan waxtaane day ak xasiida yi ak alxuraan ñoo bokk àtte ak jaamu yàlla la wax jooju ñuy faral di wax bis boobee ñuy jàng xasida di jàng ba yàgg am ku jóge ca sëñ kër ma sàmba ñëw am lu mu déy ma sàmba ne ko ay ganan ca kër ga dañoo def loolu rek sëñ bi daan na njàng mépp taxaw ñu taxaw di ko déglu sëñ bi ne dama ma sàmba mu ne ko Mbàkke mu ne ko bàyyi leen fu ñuy jàngate sama xasida yi ngeen ciy bërëxal ay wax ku ko ci bàyyiwul de malaakay sawara yi danañ la jël bërëxal la ca safaan suñ Masamba daal di jooy ne ko Mbàkke tuub nañ ko mu ne ko mat na ko de ne ko ma Masamba xanaa xamoo ne yetti jataay yi ñooy am fu ñuy jànge alxuraan fu ñuy jànge xasida yi ak fu ñuy waxtaanee sama mbir ne ko fu ci doon ci yett yi ba jataay yooyu yàlla suñu borom day teew yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam teew ma teew jataay bu sëñ Tuubaa teew nag buñ ko mënoon dañuy bañ a noyyi sax woo ma la ak di raf li ma doon wax mooy ñu gën a delloowaat njukkal Sëriñ Tuubaa te bañ a ja ba li maanaam xéewal gi ñu yàlla defal ba boole ñëw suñ Tuubaa ñuy ñuy ñuy jëfandikoo xéewal googu bay yëg ci suñu xol bànneex bañ cee yëgati benn jafe-jafe ndax yàlla defal nañu xéewal gi gën mooy li ma doon wax léegi ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla ci nun ak jàpp ndal képp la ci bëgg waaye bëggul ci nun lu jafe dafa am bis jamono yoo xam ne nii dama tawatoon nekk Dakar di faju mu mu tombeek jamonoy élection yi am ko ma doon wax ne ma am bis ma xëy nar a dem hôpital am ko dem ma xanaa tey de doo génn ndax réew mi daa jax loole taxoon ma doon ci def ay bëyit ca saasa daane dama toog ñu ñëw naa ma yow mi jógal xanaa yow yëgoo tey ne réew maa ngi jax manaa cëy xanaa ñoom danoo réere mbir ne bàmbaay sama réew te baa ngi dox sama xol dafay neex li feeg maa ngi yëg sëriñ bàmba xaadim mi gën ñépp sax damay sant kay way li feeg maa ngi xam sëriñ bàmba xaadim ci yëf yi ma jox ba ca mujjanteel ga ma naan ko amoo ndey amoo baay amoo menn maam mbindeef yi dañuy dee ba jeex yow nga sax am bis nag bayit woowu yi ma mujj wax ma bëggoon koo dindi ci ngir xam ne ñépp duñ ci tolloo pas-pas ki ma yaakaar ne moo ko yor ma dem fa ci moom ngir bëgg mu jox ma ko ba ma àggee mu bëgg ci ñëw gi ne ma tey de li ma lay ganalee mooy dama lay jox ay sekkare waxtaani Serigne Touba am yu mu génn ne wan ma ko mayam ci mel ne man lay tontu ma ci sëñ bi di wax ak sëñ mbay Sarr ne ko Baba Babacar Sarr mu ne ko Mbàkke mu ne ko li nga may wax de xam naa ne dëgg la ci yow yàlla ji nga may wax waaye dikkal tey jii de danaa la wax lu ma mës a wax kenn danaa la wan lu ma mës a kenn danaa la may lu ma mës a may daal di yëkkati der bi mu toogoon ne ko xoolal mu xool mu ne ko loo fi gis mu ne ko gis naa fi am pax mu sew mu ne ko dugal ci sa loxo mu dugal ci loxo mu ne ko loo fi daj mu ne ko daj naa fi woggu ban wu dëgër mu ne ko génne ko mu génne ko mu ne ko gis nga lii mu ne ko mu ne ko moo des ci li suñ borom tëne woon aadama mii maami aadama seen maam ten mooy bindee ne fii laa ko dencoon mosuma ko woon kenn yow képp laa ko mos a wan ne ko Babacar Sarr mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko waccal mu dellu waccal mu dellu géeju penku gi ak goog soow gi yëpp yëngoonoo nañu te boo wëccut dana nu fekk fii sëñ Babacar Sarr daal di wàcc mu dellu sëñ mu ne ko Babacar Sarr mu ne ko Mbàkke mu ne ko juruma kenn kenn juruma mu mu tolloog loolu ma doon wax mu ne ko juruma kenn kenn juruma bu ëllëgee ñii ñuy tudd di ma tudd may naa la ngay seen baay nga xam ne keroog loolu la ko wax kon moom li ñu war a déggee ci moom mooy kum boole ci boppam rek dalaa boole ci boppam waaye kenn tollul nu mu lay boole ci boppam am na gone guñ ma sa yónni mu ñëw ba jub fi sëñ bi nekk bi mu dégloo mu dégg am riir bi mu yëroo yërndoo gis sëñ bi di baagante ci yetti pax pax mu ne da koy tiim am lu muy wax waaye mi ngi dégg mu naan bind mbind mi bind dënn bi bind sa bopp jaar fu sew wàcc ci dënd bi te yàqul ci sa ngóor ga dara dara dara dara nee na loolu la dégg sëñ bi di ko sëñ Babacar karsar momi am nabis bis sëñ bi gani nar yoy yi mu da am mu am ci kenn yabal ko ci sëñ Babacar karsar ngir mu fanan gan gi bim ñewé teud sin sëñ Babacar Sarr yéex a bim bi mu ñëwee ci kaw lal bi gan gi ne ko loo bëgg bok ak man lal bi mu ne ko waaw mu ne ko sa xel xalaatu ko ak man fi ma tollu ci ay maqama ci sama digënté ak sama borom wax bopam dal sëñ Babacar Sarr ne ko ah man de kudu dul Touba nangamuma la am fu jaar. ñu tëkkoonte ñoom ñaar ba waa ji ne ko dinaa la rey ci guddi gi tàbbal la sawara mu ne ko baye boo daal tëdd ñoom ñaar ñu bokk lal bi mu xëy moom sëñ Babacar Sarr fajar mu jóg yeewu def li war a def julli nekk ci lim war a nekk ba bam naaj te kooku jógul naar ba jógul bam naajee mu ne a ah, xaaral ma yee ko moom miy tëkkoo te ndekete julli suba sax du ko def daal di ñëw yee ko fekk ko mu faatu mu daal di dem ci sëñ bi di ko wax naka mu jur sëñ bi rek sëñ bi daa di muuñ bi ñëwee ne ko moom kat kan ma boole loon daa mel ne daa faatu sëñ bi ne nañu woo gani naar yi nekk ci dëkk bi ñëpp mbokki naaram yi ba ñëwee sëñ bi kooku kat dogalub yàlla daa agsi ci moom ma bëgg ngeen seet ci yéen ku ngeen jàpp dina ko mën a taxaw mu taxawu ko te ngeen def ko ci armée bañ demee def noonu ba noppi bañ ñëwee ba yëpp jàll sëñ Babacar Sarr ñëwaat ci sëñ bi sëñ bi ne ko Babacar Sarr sa naar bi moom dem gi bett na lool de mu ne ko waaw Mbàkke moom day doy na waar sëñ bi ne ko xanaa da ngeen amoon ab jotee mu ne ko waaw moom de bi ñuy waaja a tëdd dane ma du ma bokk ak moom lal bi ma ne ko ma ne ko ci laay tëdd mu tëkku ma ma ne ko ku du Sëñ Tuubaa nangamu ma la mu ma ne ma dama lay rey ci guddi gi tàbbal la sëriñ sawara sëñ ne ko mbaa sikkoo sikkoo dara ci ne loolu mi la waxoon ni mu la ko waxee woon ni la ko ma ne ne ko moom daa bokk ci awliyaa ullaahi yi nga xam ne luñ ñaan suñu borom mu may leen ko boobee mu la waxee loolu la ñaan suñu borom ne ko na malaaka mi ñëw ci saase jël si ruu bi mu waxee loolu ba malaaka may ñëw laa rocc sa ruu yow denc ko malaaka ma ñëw seet seet gisu ko te du dem te yóbbaalewul ak ruu mu jël ruum ñaar ba yóbbaale ko sëñ Babacar Sarr ko ne ko yow kon yàlla nga yow mi nga xam ne yaa man rocc ruum na na nit di ko delloo loolu li muy tegtale mooy li sëñ bii doon wax léegi ci fi sëñ Tuubaa di àgg ak ñun bay jël suñu ruu di ko denc nga xam ne ngir bañ lor di agsi ci ñun loolu nag am na lu ñu ko ci war a njukkale mooy sàmmal ko suñ bopp sàmmal ko suñ bopp fexe ba suñ jëmm yi yàlla tànn ñu def ñu ñuy ay mbindeef tànn ñu def ñu ñuy doomu aadama tànn ñu def ñu ñuy ay jullit tànn ñu def ñu ay murit tànn ñu def ñu nekk ci dëkk bi am ci ñun ñu tànn ñum tànn ñuy jàng xasida am ci ñun ñun tànn ñuy déglu xasida am ci ñun ñun tànn ñuy dégg ci barabu Sëriñ Tuubaa war nañoo jombale suñ jëmm yi itam ñu koy dugale faneen fu suñ Tuubaa gërëmul ndax ku ko ci def rek xotti nga war ma sa digganteek moom te day mel na lam la doon tànn mu toog loolu war nañ ko bàyyi xel te lu ne daj na ko ngir mas naa bis muy tàngal muy tàngal kafe teg ko ci wetam ba kafe ga tàng sëñ Maxtaar Silla fab ko di ko jox ba mu téyee baraada ba mu lakk ko mu daal di wiccax sëñ bi ne ko saf ñaw digale ko digale ko mooy jàppe ko dara mu daal ko jàppee dara sëñ bi ne ko maxtaar sawara moom kuru seen waaj ñemewu ko ne ko biñ nekkee ci géej gi bis yi tubaab yi daan lakk nit ñi dañ ko daa ay ay lo ne ko saa ture keroog ba mu aayee fekk na ma fa waaye dane ma dama bëgg nga dox sama digganteeg sawarawu ëllëg ma ne ko danaa dox sa digganteeg moom waaye maxtaar booba bu waxoon woowa sax du ca lakk waaye da ko wóoluwu ko defe woon na ne moom faaw mu lakk ko dañ koo jël lakk ko ba mu ñor ñu sànni daane ko waaye maxtaar seen waaj yi ba luñ doon lakk benn yoon dañ koo def ñett yoon ngir ne lii faagaagal nit ñi du ko faagaagal ne ko dañ koo lakk keroog ba mel ne ak soy ñu ubbi ko ne ma ca yulub tëj ko bàyyi ma ca bàyyi ma ca ba defee ne bu doon luy ñor sooy naa nee na ñu ne ubbeet fekk ma may julli ne ko keroog ba ma ne faa tegg sama tànk ab sedd toppe na ma fa boo xam ne ba fii may waxe yow ma ko yëpp maxtaar kurul seen waa ji ñemewul sa war keroog loolu la ko wax te yooyu yëpp suñ jëmm yi moo daana wax ne bokk na ci tubaab yi yooyu ñu ko daa def am na bis boo xam ne daa am ku kii moom li ngeen ma ciy dimbalee mooy ngeen jox ma ko te wutal ma cin lu mën a def nit sëñ bi daana wax ne cin loolee dong leer ga dong leer ga ñett ñu am lef ñoo koy ñoo koy jàppoo dong leer mooy kubéer ga sëñ bi dawul wax leer ga ñett ñu am lef ñoo koy jàppoo nee na am na bis boo xam ne ci lañ ko def nee na di ko xamb di ko xamb di ko xamb di ko xamb ba defe ne bu doon luy ñor fi mu ne war naa ñor nee na waxtu suñu borom wi jot ma wax suñu borom ne ko waxtu wi de mi ngi jot nee na suñu borom ne ma dinaa def ci seen xel luy tax ñu dindi la nee na ñu xoolante jàpp ne ñor naa fi mu ne ñu daal di ubbi daan ne waaye ak bëreet ja ñoo loolu ñuy wax buur sax def na te bi maa yasha'u boobu ñuy wax am na ñu ne foofu la ko taalif ci biir cin loolu yi te foofu la waxee irham jami'al wara nga xam ne ñu ko doon def sax daa mel na leen ci kon li ñu war a gën a xamaat mooy kennal kooku te bañ koo booleek dara. te xam ne lim ñu defal ci suñu bopp mënuñu am na ko ñuy wax sëñ Modou Anta bàcciloo daanaka ci am xel la sëñ bi daa waxee moom daa am bis mu ñëw ci sëñ bi fekk sëñ bi yor ab kaamil juutal ko mu wax ci mu xelam ne nekkate ab kaamil dees na ko juutal sëñ bi ne ko Modou Anta bàcc maa sañ lu kenn sëñ mu waxaat ci mu xelam ne am xel dees na ko tontu sëñ bi ne ko inna allaha laa yaxfa alayhi shay'un sunu borom dara nëbbuwu ko am bis am mbokkam mu faatu mu bëgg mu ñëw mu ñëw ci sëñ bi bëgg mu ñaanal mbokk ma nag dadul am murit mu rus koo wax sëñ bi waaye daa ñëw rek toog xalaat ko bi mu ko xalaatee tuuti sëñ bi mu du anta bàcc tibbal foofu suuf jox ma ma ñaanal mu tibb suuf jox ko sëñ bi ñaan ñaan ba jàgg mu jox ñu ko yóbbul waaye boo demee dana am kersa lool de dana rus mu toogaat di xalaat ñi dajanteeg sëñ bi te joxuñu seen bopp sëñ bi te mën a jaamu yàlla lool te mën koo sellal ndax bu ëllëgee daañu am àjjana loolu it da koo xalaat rek sëñ bi ne ko ma du anta bàcc musik gi xool ko mu ne ko lu dul jeex de ku ne da cee waaye cey kon loolu rek la lu dul jeex de ku ne da cee waaye cey kon masaam ñett ñu ànd ñëw ci moom kenn ka daa yorum njaboot ca këram guy bari kenn ka ñaar képp la yor ca këram kenn ka kenn kepp la fa yor ba ñëwee ba nuyoo kenn ki ne joxe naa nàngam ci sama njaboot kenn ki ne joxe naa kenn diw sàngam ci sama njaboot kenn ki nga xam ne kenn képp la yor te moo yor këram muy nig nigal xamul nu mu war a def sëñ bi ne siggit xool ko ne ko àndaar ana bu dee jenn ci kër nu ñu ko war a def mu ne tekk mu ne ko da nga koy faru su delsee di sàq da koy faru su delsee di sàq noonu la daan defenteeg ñoom nga xam ne ku toog ak moom rek sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa Xalima Gueye ba ci ñoom da daa sar ci ñoom sëñ Moussa Xalima Gueye dafa am bi sëñ bi woo ko yor am mbind ne ko Moussa bindal ma lii daal di koy tëjaat te gisu ko gisul mbind mi mu dem bindi ko ba ba mel na war a mel moom sëñ Moussa Halima Gaye bi mu noppee bi mu koy indi nii la sëñ bi jëlee mbind ma nii lii la jaar la mu jox ko ko mu dugalaat ko ci biir nga xam ne kenn waru koo gis ba muy ñëw nag dafaa fekk Cheikh Ibra bi mu ñëwee ba jub sëñ bi daal di taxaw sëñ bi ne ko yaa Muusaa aqbil wala taqaf innaka minal mu'miniin mu daal di ñëw bi ñëwee Cheikh Ibra ne ko Muusaa yow muus nga lool di ana nooy binde loo gisul mu ne ko yow it yéeme nga lool di ana nooy nettali loo fekkewul ana nooy nettali loo fekkewul nga xam ne ñoom noonu lañ daa def Cheikh Ibra moom nii li sëñ bi doon wax ci moom léegi sëñ Tuubaa kenn du ko xam mas nañ koo laaj ne ko ana loo xam ci sëñ bi mu ne xanaa li sandax bi dara ci guy gi am na bis sëñ bi ne Ibra Faal day bàyyi na boppam bàyyi bokkam bàyyi boroomam ngir man ma defaral ko boppam boole koo ki bokkam marale ko boroomam boole naa kook ñoo xam ne buñ gënuli bokkam it ñoo gën ay bokkam ci moom am na bis am lu am koo xam ne daa am bëggoon ab barkeelu barkeelu ci sëñ bi ñu ne ko da ngay wut lu mel ne li sëñ bi sol ci saaxiir dem andi ko mu dem wuti ko ñëw jox ko sëñ sëñ bi bi lépp da koo xam naka mu ko téye ci loxoom daan ne lii ana lu dim xaymaam am ñu nar a tontu Ibra Fall jóg ne ko ba nga ko téye gudde nangam moo doon ab xaymaam waaye bi nga ko xasee téye amatut xayma bu ko sëñ bi masaana yónni donte fa mu ko yónni dara nekku fa bu ko nee da nga koo gisagul danaan ko maa ngi koy waaj gis waaye mës wax sëñ bi déedéet yooyu yu ñu war a royee ci moom la mës sa wax sëñ bi déedéet mësta sa dil si ne ko la nga ma yónnoon yoru gis moom moom day wëreelu rek bu ko sëñ bi ne gisoo ko mu ne ko maa ngi koy waaj a gis mas nay xelli ataaya di ko xellee ci càmmoñ bi sëñ bi ne ko Ibra ab càmmoñ kenn du ci liggéeyee mu ne ko mbàkkee cër yépp la war a liggéeyal cër yépp la war a liggéeyal am na bisit mu jël ak kaala aku mbaxana ak dàll aku dem ginnaaw kër aku yat ñëw ba ci keesu sëñ bi mu teg ko fa daal di dem waxut dara moom Cheikh Ibra bi sëñ bi julli si julli daal di génn yam ci bi mu ko gisee daane ana ko fi teg lii sëñ bi ba ma saana wax kàddoom day riir ba lu nekk ci kër gi lu ne la nga dendal dana la ko jot donte du nit nee na léeg-léeg daana wax ba ba kubéeri ndaar yi ndaa yi day yëkkati ko buy wax kubéeri ndaa yi day yëkkati ko ba du laal ndaa yi bi nga xamee ne wax na loolu ñu daal di gëstu kum doon bi mu julli jee ba ñëw mu ne ku mu doon ñu ne ko Ibra dee mu ne nañ ko woo ndax mu wax lu mu ci jublu suñ bi dawul wax ci ginnaaw kenn loolu ñuy wax jëw daw ko def daw ko def daw ko déglu nañ ko woo ndax mu wax lu mu ci jublu ba mu ñëwee sëñ bi ne ko Ibra Fall jubloo lii mu ne ko dama ne ku fi sol lii muy mbaxana mi mbaa nga sol fi lii muy dàll wi mbaa nga sol fi lii muy kaala gi danaa la dóor kii ba nga génne lii nga xam ne li mu bëgg a wax wax na ko te waxut benn baat bu ñàkk teggin benn baat bu ñàkk teggin yooyu nag dafa am yuñ ci war a jàng yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daawoo werante ku sëriñ sëriñ ba jobi yaa bari njariñ wane wi yaaga ngay naxe xam ngay dërëm ba xam ngaram fam nga dërëm jëndey ngaram lu masa xam tabal këram ay junne daal nga daan joxe sëriñ bi mas naa nee na mu ne sawara da dafay ñëw di ma laaj wàllam ci sa ci sama ñoñ ma xamal ko ne man amoo wàll ci man ndax awma luy lore bam naa ko ba wan ma ginnaaw ma ne ko xanaa nga dem ca Ibra Faal ñey diingat Ibra Faal bu ëllëgee nga xam ne ñooy sa cër bu bu la ko xa bu leen jéggalee na nga xam ne moo la ko xañ loolu la ko bu leen jéggalee na nga xam ne moo la ko xañ nii ñu ajoo ci sëñ Touba ñun nit ñi itam noonu la malaayika yi ajoo ci sëñ Touba di ko siyaar loolu bind na ko chakarani inda jamihi jundihi raamoo siyaarati maan min hindihi am na bi sëñ am satu jaxati sëñ bi woo ko mu ñëw fekk sëñ bi ci melokaan woo xam ne jàpp na ne waru ko caa fekk mu génnaat sëñ bi ne noon naa koo ko xam satoo sëñ bi ne noonu naa koo ko xam mu ne ko waaw mu ne ko agsil mu ñëw nara a toog ci wetu càmmoñ gi sëñ bi ne ko doxal nii te ñëw ci wetu jor gi bi mu ñëwee ci wetu jor gi toog ab diir sëñ bi ne ko am satu mu ne ko mbàkke mu ne ko ku amee puutar te mënoo jam mbaa boo mënee jam ñemewoo ci àll bi da ngay seet dànn bu mën a jam te ñeme ci àll bi nga jébbal ko say puutar ne ko yéen ñi ma jébbaloon seeni puutar day sooyu leen ndax dugg naa bi rëbbi ba ñëw li amoon njariñ ci all bi lepp andil na len ko dara desatul luddul setal loxo yi ba meuna a jëfandiku ci rebbum suñu am sët ne ko mbacké de buñ ko sañon dagaan la fofu suñ mi ne ko sañ ngeen ko mu ne ko nun day mbacké tak gi yalla nu ko ba taxna na no set ta suñ tak gi kat xëjamul sa set gi ta sa set gi sutural na suñ tak gi ma bëgg nga yërem no sarax nu dimbalé nu banun meuna def ci mi ne ko non la soobee sa borom daanako am sët loolu sax da taxutoon ma di la woo gar rek gar li ma la doon doyee mooy Seydina Jibril léegi la fi jóge ma di la xamal ne lu weesu tey soo ko fi gisatee siyaar si maa ko fi indi waaye du lenn ndigal lu muy jële fa sa jële fa sama borom di ma ko indil mbaa xam-xam bu may xamal si ndax li des ci li may séq ak sama borom sama borom seppi na ko ca ba mu set wicc te bu ko ca wanoon lu toll ne sarra dana ruy ba mel ne kawar bu ñu dugal ci ñu ko am sotu mu ne ko mbàkke mu ne ko li des ci àdduna de bokkaale gi sama borom gën a bañ mooy tudd ñi di ca teg keneen mbaa du ngeen ko def mu ne ko fasuñu ko yéene sëñ bi dem ba am lu muy bëgg a waxaat daal di jël kaala gi teg ko ci gimiñ gi ne ko li des de sama borom daa nëmmul mu feeñ fii waaye ba booba waaye ba booba loolu yi la tontu suñu am satu mas naa woo maam Thierno ne ko Thierno bu ñu tuddee yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam lu ngeen wax ñu ne ko dañuy wax sallallahu taala alayhi wa sallam alayhi salaatullahi sëñ bi ne ko man nag daal di joxañ boppam mu ne ko xanaa nga dimbale ñu ba fu ñu la tuddatee ñu xam li ñuy wax mu ne ko fu ñu ma tuddatee da ngeen di wax amul moroom ndax ku ci jàq ci yéen wooma mbaa nga am aajo wooma danga xam ne aw ma moroom da nga xam ne aw ma moroom loolu yi daana digle su ngeen gisee fu ñuy tàmbali di wax bisimilah loolu dañ leen koy baaxe daa am koo xam ne ku ñu wax sëñ mat ja daa am bis mu am ko mbokkal ñuy jëfandiku xam naa aw turam kooka daal di raxasu ba nopp daal ne bisimilahi xaalidun walid mu daal di téye loxoom ne ko loo ci jublu mu ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees mu ne ko man de bokk na ma ak maam Thierno Ibra Faty raxasu ba noppi ne bismillahi Xaalid ibn Walid mu téye sama loxo ne loo ci jublu ma ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees maam Thierno ne ma bokk na ma ak raxasu ba tibb mu téye sama loxo ne Xaalid ibn Walid mu téye sama loxo yëlëb tibb ba ne ma ana loo ci jublu ma ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees sëriñ bi ne ma Thierno ma ne ko Mbàkke mu ne ma fu ngeen neetee bismillahi sama tur képp la yàlla di dugg sama tur képp la yàlla di déglu kon noonu lépp lu ñuy wax wala lu ñuy def dañ ko war a tàmbalee bisimillahi barke borom Tuubaa ñu xam ne itam li am daana wax ne yéen samay taalibe bu leen jël seeni njuur di ko wéer ci am ci ay dem joor bu leen jël seeni njuur di ko weer ci ay dem joor ndax sama benn taalibe bu ne moom ñaari saxaaba yi yonente bi ñoo yem am na bis sëñ sëñ Malick Bassine si ak sëñ Mor Khady si sëñ bi ñu ñëw siyaare sëñ bi dañ daan def bu ñu koy siyaare lu mat fukki meetar la raam bu leen yeewee ñu raamaat lu toll noonu doog a jóg bés ñu def ko nag fekk fa soxna Fat Ja bañ ko defee ba jóg sëñ bi ne soxna Fat Ja ñaar ñee xam nga leen mu ne ko dee déedéet fekk xam na leen waaye ñoom bu ñu nekkee ci sëñ bi duñu bëgg xam dara sëñ bi ne ko ñaar ñee de rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam daa bëggoon lool ñu bokk ci ay ñoñam waaye man la ko yàlla jagleel. te ñaari talibé Serigne Touba lañ serigne malik bassin si mom amna na bi serigne ne ko demal wutal ma matum sump yaag say ñooñ bam démé ba ñew kenn ku ne da nga samp saw say tok ci wet ga ndax bobu serigne bi da nek ci biir génnagul ba bam genné kenn ku ne da nga teurel saw say teud ci wet ga mu daal leni wër ñew taxaw ci wetu penku soow gi jublu penku ni ñu def daal ne leen na ngeen sant yalla seen borom bu baax mom mi leen taxa bëgg dara yabal leen fa am dara xiir leen ba ngeen def fa seen dara na leen wóor ne da ngeen am dara ñun tamit yàlla nu yàlla defal dara ci dara dara yooyu nit na ku ko bëgg war xam ay digleem ak i tereem Serigne Touba lu dul lu yàlla digle digle wu mës am complexe itam ci def ko ak fu man di doon am na tubaab bu mës a ñëw fekk sëñ bi yor ab kaamil mu ne ko maarab bu aal ma sa téere bi sëñ bi ne ko téere bi ku setut du ko laal mu xool loxoom ne ko man de mi di jotagut te ci subaak léegi sangu naa fi ñaari yoon sëñ bi ne ko fa sa sobe nekk sa loxo mënu fa àgg ndax innamal mushrikuuna najas yéef yéefari mushrikoona yépp ay sobe lañ daana wax ci digganteem ak tubaab yi am na bis ñu ko woo bari yi ko daan woo ci ñur njëreem am ku ko ne mbàkke de fi ne war ngaa wax ak ñoom ndax ñi ngi lay lii moom dafa metti magum jëmm fu ñu toll di ko woo sëñ bi ne ko lenn luy luy nuru lorde du bàyyi ko ca ñoom jëm ci man ndax suñ borom mi ma booleek ñoom moo ma xamal ne maa daa tege te teggi naa te nangootuma ko teg maa daa tege te teggi naa ko teg Sëriñ Tuubaa moomu nag am na bis am ku ñëw ne ko ñaanalal ma ñaar ñi ci seen sëy bi ndax ñu juboo sëñ bi ne ko téemalee na ñaanal ñu jub ba noppi door a juboo ne ko xanaa xamoo ne yàq goo gis ci àdduna ñaar ñu juboo te jubu ñu ñoo ko yàq am na ko ma sa ñëw ne ko ñaanal ma ma takk sama doomi nijaay sàngam sëñ bi ne ko jërul ñaan ndax jigéen ñett képp la ka nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax ak ka nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo ak ki nga am wàll kaneen am ci wàll ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax boo yoree yaa ko yor boo yorul yaa ko yor kenn mën la koo teree yoo ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo boo yoree doo ko yor boo yorul doo ko yor kenn mën la koo tax yor ki nga am wàll kaneen am ci wàll lu ngeen yàgg-yàgg bis dana ñëw ngeen tàggoo kaneen fa ko yett yooyu képp a ci am jurul mas naa laaj mag ñi itam ne leen dugub moom ana luy mbokkam ñu gën a gën a fal wax lu leerul mu ne leen cox rek kay mbokkam waaye ak ñàkk a mën a ànd tax ñu jël cox sànni fële jël ndawal boole dugub te bokkuñu aadama ak awa ak bokk yàllaa koy def waaye ak déggoo mooy dégg ndax ci lees mën a ànd mas woo seex si itam bañ ñëw mu ne leen yéen ñi nit ñi ñëw ci yéen di jébbalu ci yéen maa ngi leen maa ngi leen xamal ne taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci tooli xare taalibe yi duñ seeni jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sàmmi dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba say taalibe réeruñ ruuruñ yowmal xiyaam ci santante ngeen i mujj waaye ku sàggan ba say réer wala ñu ruur yowmal xiyaam ci jàppante téere baat ngeen i mujj loolu sëñ bi daana ko digle daana wax na itam barsàq barab la boo xam ne yaar yi képp a maw ak fuuyu daane barsàq ku fa tàbbi te yor dara dangay fuuyu ak moom doo ca may kenn ndax kañ la bis penc di taxaw nee na ku fa yorul dara boo demee da ngay xala maw ba keroog bis penc di di di taxaw ndax doo am loo dunde daana wax ne doomu aadama ñeent yi képp la ñeent yi képp la am jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam nee na sa jëmm soo demee ba xàmmeetoo ñam ñamu neex xàmmeetoo jongama ju rafet ñàkk nga sa jëmm say bokk fa des say bokk bu ñu la taxawoo ba nga génn àdduna ñu jébbala sa borom ñàkk nga say bopp sa alal a fa des sa alal joojee nag loo ca defutoon ca yàlla na nga xam ne ñàkk nga ko sa jëfa fa sës jëf joojee nag yaar képp la jenn muy ju rafet mbaa muy ju baax bu dee ju rafet mu ànd ak yow ba na bu je bu dee ju bon nag mu ànd ak yow ba ca safaan ba wal daana wax ne Touba ba ma fiy ñëw yaara ma fi taxoon a ñëw daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi ba ma fi ñëwee yaara ma fi yaar laa fi fekk wénd ak i saawa ba ma fi nee jàng yaara ma fi fekk ku yàlla képp ñor ak ku yàlla ku àdduna ñor muy mbubboo yàlla ñoo ñu nag kenn jeexaluma ci ndax ki yàlla képp ñor danaa ko wammat ba ne ko yàlla ngi ki àdduna képp ñor danaa ko xëpp àdduna waaye bu ëllëgee lu ma yàlla jox ba ma koy sédd ak sama bu ma xool ay bët ndax lañ séqoon jox naa ko te muy àdduna nañ fexe nag ba bokk ci ñi nga xam ne yàllaay tax ñu ànd ak moom kon yi li ñuy daaneel rek mooy ñu gën a xamaat suñu bopp te xam ne moom mës sa bañ ñu koy nettali dara am na bis ab tubaab ñëw ca njaareem wax mag ñi ne leen kii de dama ko dama ko soxla waaye xamoon naa ko bu baax ca tukki géej ga laa ko xamee woon sëñ bi bi ñu ko waxee sëñ bi mu ne kon de bay boo ñu ubbil ko te yaatal ko mu agsi ndax nun loolu wolof di wax ku say xam yenn ku baye boo fabu nun loolu dalunu ñun fu suñuy xam yenni koo ñu lal kendal ñun fu suñuy xam yenni koo ñu lal kendal am na ku ma sa jéblu ci koo xam ne daa jënd ak ndawal jaar njaay dem sëñ bi jiite ko mu dem nag këram di lakk ndawal ga mënta ñor mu dem ci sëriñu mu xaddamam di ko wax fekk fa baayam ko ko waxee sëriñu mu xaddam bi ne ko foo jaar mu ne ko jaar naa ci kooku ci kër gu mag gi de mu jiite ma mu ne ko kon du lakk ndax kooku mu jiite doo lakk mu daal koy sànni ndawal ga ne ko kon de dem naa ca moom bàyyam ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko na la wóor ne boo demee ca moom li doxoon sama diggante yow muy ak njureel dañ na bi ni ko tey mu ne ko waa baax na waaye daal dem bi mu ñëwee nekk ci sëñ bi ab diir baay bi tawat tawat ji metti am ñëw am ñu fa ñëw ne ko sa baay de daa tawat ñu bëgg nga ñëw yor mu ne leen moom li ñu séqante mooy ak njureel te dindi woon na ko kon du ma dem ñooña dem ci sëñ bi wax ko ko sëñ bi woo ko ba mu ñëw mu ne ko ba ñuy wax wa wasaynal insaana bi waalidayhi husnan tey taxoon ñoo di ko wax waajal te dem daal di yëkkati yaari mbuus jox ko ko ne ko ñaari mbuus yi nag amoo sañ-sañu tekki ci benn li fekk ngay àgg boo àggee nag am nga sañ-sañu tekki benn bi waaye li fekk jeexul amoo sañ-sañu tekki bi ci des ba mu àggee mu tekki benn ba fekk ca cere ak i sondeel mu jël cere ji di ci dundal baay bi bu guddee mu koy taalal ci sondeel yi ba sondeel bu mujj ba di fay la roo baay ba di génnaat mu tekki mu sañ a tekk ba ca des ba mu ko tekkee fekk ca ay càngaay ak i ñaan mu waajal ci baay bi ñu denc ko ba noppi mu ànd ko jël daal demaat ci sëñ bi naka mu agsi rek sëñ bi ne ko xanaa waarooti nga de mu ne ko waaw Mbàkke waaroote naa de mu ne ko loo ci xamul tey jii la jé jéngub sawaraam dañ te ci yow la ko amee tey jii la jéngub sawaraam dañ te ci yow la ko amee xam naa bu ñu ko toppee day bari rek waaye li ñu ci doon def lépp diñ ci jublu ak jaamu yàlla li ma la wax ne waxtaane sëñ bi ak sopp di ko woy mooy sama tool bi may fasoo sax di ci bay sëriñ bu mag bi nag ku koy waxtaane lu yàlla digle ngay wéyal ci diine yàlla waxoon ci alxuraan ne dee leen sant ci wax xéwal yi buur defal leen te nee na mooy xéwalu yàlla buur bi lii leer na ko xolam ragal borom ñu daanee leen ko dénkaane bii nga xam ne dañoo bëgg bu ñu koy waxit kenn ku ne jàpp ko ngir mën koo jariñ ndax wax du ceegi ne dañoo war di wax rek ngir ne diw daa mën a wax wala diw daa xam ne wax waaye li am solo mooy li ñuy wax ñi koy wax di ko dund ñi koy dégg di ko di ko jëfee lañ ca man nga sëñ bi loolu képp a ko taxoon di wax am na bis muy wax sax am ku ñëw ne déglu leen sëñ baa ngi waxtaan mu ne ko déedéet waxtaanu ma de damay jàngale ne ko waxtaan mooy kii wax kii wax kii wax ñu tànn ca jenn man damay jàngale daal di nekk ca loola ba yàgg am naar boo ko ne hada min xawli ibni ata illaahi ndax li ngay wax daa bokk ci wax ibnu ata illaahi sëñ bi ne ko laa min xawli ibni ata illaahi innahu min ata illaahi wa kaana ataa rabbuka lii bokkut ci waxi ibnu ata illaahi mi ngi bokk ci may yàlla te may yàlla kenn du ko takk fenn jàngaleem yooyu nag daa am bis mu woote moom sëñ bi ca jolof la ba mu fay jóge daa wax sëñ maxtaar penda jang ne ko bu ñu jullee gee ba noppi na nga dajale fere yi ndax damay wax ak ñoom dañuy waaj a dellu ci réew ma ma bëggal leen ab yóbbal ba ñu jullee gee ba noppi sëñ bi ñëw ne ko ndax ñëpp ñëw nañ mu ne ko ñi ëpp ñëw nañ sëñ mi ne bisimilah kon na ma leen di dénk damaa bëgg ngeen xam ne juróom-benn ngi nii yoo xam ne ku ko bëgg ci yéen faaw ngay def juróom-benn ku bëgg a jege yàlla ci yéen nay jàng alxuraan ku bëgg mucc ci mbugalum bàmmeel lu am na ko delloo yàlla suñu borom mi ko joxoon ku bëgg ay àndandoo ku bëgg a mucc bu mu tooñ mukk kuy tooñ du mucc te kenn mënu koo musal ku bëgg a noppalu bu mu fayu ak tooñ kuy fayu ak tooñ du noppalu te kenn mënu koo noppal ku bëgg a am ba dootul ñàkk lu mu am na ko delloo yàlla suñu borom mi ko joxoon ku bëgg ay àndandoo na jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon danga dab nit mbaa nit dab leen wóor ne ñaar yi rek a fi nekk aw yoon aku ñal ku jërul ci yoon wi ku ne yaa ngi ci ñal wi ñal wi nga xam ne nag lu ëpp ci nit ñi te lañ jaar te wàccuñ ko laa leen bëgg a xamal fa muy mujjee ka ca jaar te wàccu ku jaar ci ñal day te wàccoo ko da nga dox ba sonn te doo jotu dëkk mbaa nga weesu dëkk di wéy te ñal waa ko waral pakk dana la fél dëgg dana la jam doo for dara te loo réer le kenn du ko for di la ko jox kenn du la dab itam di la yóbbaale daan dégg ngeen ñu ne waa mu ne kaay leen wax leen ni ñuy jabootee bala ngeen a jaboot bi mu ko waxee sëñ Maxtaar Penda Jang daal di yuuxu wàcc caabi yam yoroon ne alhamdulillah loolu di tax na ñu xam ne danañ amuk njaboot ndax ñoom nee na bi ñu ànd ak sëñ bi dañoo jàppoon ne dañoo joxe seen bopp te duñ amuk njaboot dañu ànd ak moom noonu rek sëñ bi ne ko waaw waaye bu ngeen ci àggee ba yilif lu toll ni fukk mbaa ñaar fukk jëm kaw nga xëy bis woo leen ñëpp ñëw nga digal leen la nga leen war a digal te yàlla rek tax tere leen la nga leen war a tere te yàlla rek tax juróom-ñeent yëpp gàntu la nga digle kenn rek nangu ko caa def bu ko xeebee sa bopp jàpp ne yaa matul bu leen ko yeddee ñoom it jàpp ne ñoo mati surga sante ko yàlla sa borom mi la bind bind leen te tenewula ci ñoom ndax wa maa xalaxtul jinna wal insa illa li doon la wax te ba mu ko waxee ba nopp mënoon naa dagg ab ya teg ca ku jàdd ci yoonu mu teg la ca sansa te mu te defu ko dañoo lànk lim leen digal te mën na koo faj kam fatal ay ni ndax moo moomi jaamam sàkk leen bind leen te yow moomoo leen sàkkoo leen bindoo leen dañ laa sagal rek jiital la seen kanam kon mu ngi ci yàlla am dee leen ko am dégg ngeen ñu ne waaw mu ne kaay leen ma wax leen ni ñu yore jigéen ba na ngeen koo yor daan na ñoom jigéen ñi de daa am ñeenti jikko yu nekk ci ñoom yu tax ñu naqaree yor waaye yéen góor ñi it da ngeen yor ñeenti jikko yu tax ngeen mën leen a yor te balay loolu ngeen jàppee leen gone yu gaaw a ami yeel maanaam gone yu gaaw a màgg daa ne ana ñeenti jikko yi nekk ci jigéen ba tax mu naqaree yor nee na dalay tooñ njëkk laa mer du la gërëm du la yërëm dalay tooñ njëkk laa mer du la gërëm du la yërëm nee na ana ñeenti jikko yi nga yor yow ba tax nga mën koo yor da manal di ko muñal di jëllale tey jéggal daan na ngeen bàyyi kuñ ci joxati soxna nga jàpp ne ab jaam lañ leen jox duñ seeni jaam jaamu yàlla lañ dañoo bëgg ngeen ànd di jaamu yàlla ci dëgg kon lu ngeen leen digal na fekk ngeen jiitu ca lu ngeen leen di tere na fekk ngeen bàyyi ko te tooñ guñ leen tooñ lu mu rëy rëy na ngeen leen ko jéggal te xam ne yéen a ngi tooñ yàlla lu ko ëpp te mi leen ko jéggal te nu ngeen leen ëppee doole ba mën a fayu ci ñoom yàlla ëppee na leen doole nu ko raw te teewul leen di jéggal kon dee leen leen jéggal ni leen yàlla di jéggale dégg ngeen ko ñu ne mu ne mën a dem bañ jógee bay dem mu ne leen kaay leen ñëw mu ne xam ngeen lu tax fa ma toll di leen digal lu baax te bëgg ngeen di ca sax di leen tere lu bon te ngeen di ko bàyyi ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne day def ne boo nekkee ci lu baax te sax loolu ab safaan jege-jege jërul tiit jërul mustu jërul daw taxoo koo jóg saw yoon nekku ca daal di wëlbatiku yam ci seex yi ne leen yéen ñi nit ñi ñëw ci yéen di jébbalu ci yéen maa ngi leen di digal rikk waaye foofu waaye bàyyi koote ci barab dikk ci kenn ci yéen ñee ko jox naa la sama bopp àddina ak alaaxira na nga sàmmoonteeg baat boobu yi mu la wax ba fu ngeen mën a yem ba mu xamante loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla sunu borom daan ne alaykum wa rahmatullah wa man alaykum wa rahmatullah ñu jéglu jégalu bu baax. jërëjëf jërëjëf Cheikh Abdoul Khadar mu bay Cheikh.